asalaamaaleykum mbokk yi di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant rek comme nañ ko daan di defee rek saa su ne dellu waat nañ si seen émission journal journal de l'arène xam ngeen ne nag plateau bi dama ci àndal ko nga xamante ne mooy Babacar borom lamb ji ah ñu daal di ko nuyu rek Babacar. rawatina maa ngi lay fay euh, naka sa vendredi. waaw sant alhamdulilah. macha allah sant nga de. waaw waaw di la jàppale rek. comme uh-huh. <laughs> ah, ah ah ah mais ñu ñuul bi nag mooy bu baax bi. mooy bu baax bi macha allah. <laughs> naturel bi. waaw en tout ah. cas defaat amaat nañ contentement bu baax a baax defaat teew fii si seen émission journal de l'arène euh, su ko defee ñu daal di dem seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi dikkaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 12 novembre 2021 dañuy ñëw ak ci yëglikaay sunu làmb leen kay doore yëglikaay bi tey xëtamu njëkk la ca xëy gën saa fes bokk na ci ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 la lion de Guédiawaye ak Bombardier ma nga xam ne ni moom mooy le B52 de Mbour mu mel ni ki nag ñaari mbir ku ci nekk daal yaa ngi sol sab xaftaan ñuy bàkku waaye yëglikaay bi nee na daal boo bëggee dégg dëgg moom maanaam fii ak juróom fukki fan ci kanam maanaam le premier janvier 2022 daal xaftaan yi ngeen sol di ngeen ko summi nag arbitre soufflé ngeen jàkkaarloo korose yi jóg solante maanaam teqante jël am yëglikaay bi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 Baye Singa te Eumeu Sène nekk tëdd fi lu écrit ba ka nga xam ne nag moom moo di Khalifa Niang ginnaaw ba mu démissionné léegi nag daa mel ni am na koo xam ne jël na place am ko ñu naan ko barkala yëglikaay ba daal moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci biir yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb mu ngi nuy xam ne daal dimanche ji nu jëm fa nga xam ne moo di arène nationale jéy seen ma fa nar a indi diggante naaru soogaas ak tay ji ñu naan ko naaru sogas ginnaaw ñetti defet yoo xam ne teglante nañ ko na ko daal maanaam yëg li kay ne ah ja naaru day fa mu jëm maanaam ci lu méttee méttee métti daal wala lu rëy rëy moo koy xaar ndax nag ab xale la jël xale boo xam ne itam bu dangereux la muy Jackson Senior leneen loo xam ne nii wala beneen combat boo xam ne combat bu dangereux la wala combat de feu que xëy di ko wax moom moo di Fatma Dia bu këral info ma daal la mu xëy xamle ne ne boo bëggee dégg-dégg diggante Pape Ndoye ak abu Niasse combat feu dëggantaan Njaay moom lay doon tey nag nee na boo xoolee ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ te itam ay defantekat lañu moo tax mu jàpp ne daal bés boobu jamaykee tëgg moom combat du ko gën a neex rawatina combat espoir leneen loo xam ne Fatma wax na ko mooy jafe-jafe yi nga xam ne jàpp na ne ñoom reporter yi nga xam ne ñu ngi ci làmb ji ñu ngi koy jànkoonteel ci seen diggante promoteurs yi ba tey ma ja mooy xëy tey di wax loolu yemu ca tournoi ba nga xam ne tamit maanaam taxaw na te moom mu jaare ci moom muy wàllum football te mbër yaa di ko def maanaam daal Fatma Dia nee na Matar Ba mi jiite sportu réew mi bëgg na daal mu ñëw soutenir leen jàppale leen ci loolu bu baax a baax a baax leneen loo xam ne waxoon nañ ci léegi muy diggante Tapha Tine ak Boy Niang maanaam yëglikaay bi ca touché daal mu nga xëy di nu xam ne daal seenum jàkkaarloo bu mujj daal soo bëggee dégg dëgg le vingt cinq novembre lay doon fu muy amee stade Iba Mar Diop yëglikaay bi nag boo bëggee dégg dëgg daal entrée payante la maanaam ku fay dugg moom faw nga laal ñeenti téeméer ci sa poos pour mën a seetaan jàkkaarlu bu mujj bu war a dox ci diggante Tapha Tine la géant di Bawol Boy Niang la càppaacul da Pikine mel ni kon daal tey loolu moo fi kon ci yëglikaay yi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ak yeneen yëglikaay waaye Equivox TV bu ngeen fa demee tamit da fa fekk la nga xam ne nii moo di jamaykee borom jam production ak jàkkaarloo ba nga xam ne woote woon na ko démb ci arène national war a dox ci nag làmb ja tëgg diggante Pape Ndoye ka nga xam ne moo di Abou Niasse le nag la jooju làmb nara am Babacar gis nga loolu nga xamante ne moom la ñu indil tey euh, loo si am looy wax. waaw balaa may wax ci loolu dara sax comme balaa nga may laaj sax ci li yëglekaay. Mhm, damay def mhm. euh, benn kii bu ndaw rek. Mhm. maanaam pour xamal gaa yi ka ne tey ki ma àndal moom mooy Ramatoulaye Diallo. comme ni ngeen ko xamee di doomu Kolda di doomu Sénégal. waaw di sénégalaise nekk tamit fi nga xam ne nii mooy ci Equivox ah. ma am yaakaar nag xam naa dina continuer di ma jàppale ci liggéey parce que olof na lu kenn man ñaar ko dàq mhm. tey moo tax nag ma woo ko mu ñëw fekk si ma si plateau bi nga xam ne xam ngeen ne dama koy def toujours ak yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi mhm. tey nag ma fas yéene ànd ak moom ah di ko ñaanal yàlla daal carrière bi nga xam ne entamé nga ko. Mhm. yàlla na la si yàlla defal lu kawe sa njor. amiin yaa rabbi dégg ci xam am nañ niveau bu kawe ñu lay a baax. amiin yaa rabbi Babacar c'est avec un grand plaisir que tu es aujourd'hui avec toi. kontaan naa trop yow te xam naa ni <laughs> dinañ def loolu ak loolu après. incha allah je l'espère sans plus tarder ñu daal di dem ci journal boobu nga xamante ne mooy suñu làmb. Mhm. tey daal dañu xëyee naan ñu la revanche. siffler dans 50 jours entre kooku nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 et B52 du 1er janvier waaw combat revanche. Mhm. dara tàng ah. Mhm. ni de. Ah. Euh, sànq ne nga ma ñoom ñaar fu ñu dëkkati sax loo ma waxatoon si. Ah. Ah, daal li ma xam mooy. Euh, Balla Gaye 2 doomi Casamance la. mais tey kooku nga xamante ne mooy B52 doomi Mbour la. macha ca Casamance la kii ca Petite Côte Bala. mi ngi a lépp du Sénégal. Uh-huh. kon premier janvier deux mille vingt deux yàlla nañ ko fekkete tal ko combat bu xaw a yàgg yoon. Uh-huh. sunu papa Gaston Mbengue taxawal ko ëpp na at. am na at ak nangam ak ay weer mais nag loolu moo neex suñu borom ndax jaam day fexe mais yàlla mooy dogal. Uh-huh. mais li ñu am li ñuy wax daal yàlla nañ ko fekkatal ko pour pour premier temps bi. am na mais la parce que. ba Bombardier bi muy déggal roi de la ko ok yaa mhm. kon defe naa ne. Mhm. tey combat bii combat la bu nar a difficile ci ñoom ñaar ñëpp. parce li tax mooy Balla bëgg na fayu revanche boobu ko Bombardier daan parce moo tax mu jël combat bi parce am na lu mu bëggaat ci desitu carrière moo ko wax. Mhm. Bombardier tamit am na fu nga xam ne fa la toll tey ci carrière am mhm. parce que tey Bombardier dama naan nekk numéro boo xam ne nii tey ci làmb dama naan li ko waroon ci làmb mhm. pour man li ci ëpp def na ko mhm. wala presque def na lépp parce que ku dégg roi des arènes ñaari yoon ah ça veut dire looy prouvé ci làmb lu bëri des dafa fekk ne nag bés bu ne bés la ndax du bëgg mukk Balla Gaye 2 daan ko ci bés bi da koy bañ mm. da koy bañ te ku ko xam-xam ne jàmbaar la moom bomb mm. te du dellu ginnaaw Balla Gaye de ku ko xam-xam ne jàmbaar la du dellu ginnaaw parce que ñoom ñaara yem mosu ñoo am avertissement ci da ngaa dellu ginnaaw macha allah boo bëggee dégg dëgg daal 2022 mm. incha allah rabbi premier janvier ja mm. yàlla nañ ko fekkee te tal di ñaanal promoteur bi suñu papa Gaston Mbengue mm-hmm. di ko wax ne indi na lu neex a neex a neex ah du yomb daal ndax sourire ñaari visage yi kenn xamul daal fu muy mujjee. ay borom jàmm lañ nag. Ah? waaw lii tournoi chef euh, bu amoon mbuur la woon. ñu mhm. daje woon fa ñoom champion yëpp keroog ci la photo bi yaakaar naa bés boobu la woon. Mhm. ñoom ñaar bu dul làmb da nga sax ay mbër lañ muy Bombardier ah, ah macha allah loolu neex na ñun daal ah. Sénégal jàmm ak salaam lañ xam te moom la ñu oote saa su euh, su ko defee ñu daal di ñu daal di jàll ci kooku nga xamante ne mooy tafaatin mhm. nee nañ pour battre Boy Niang 2 Tafatine mise à 100 pour cent sur la bagarre a concentré wu. ah waaw bëri dóor lañ wax de parce que ñaar yëpp ngay liggéey da ngay liggéey ci xeex liggéey ci bëri. Mhm. waaye daal li am solo mooy. Mhm. ku mu ci doon ci ñoom ñaar muy tafaati muy boy ñaar booy dem na yóbbaale ñaar arme yëpp yóbbul bëri yóbbul xeex waaye yóbbul mental de fer mental bu baax. Mhm. waaye tamit na nga yóbbu encadrement technique bu doy. parce bés dafay am bés yoo xam ne encadrement da ciy joué. waaw mhm. dañ lay teg ci aw yoon mhm. am na combat yoo xam ne mhm. encadrement koy gagné am na combat yoo xam ne yow mbër mi yaa jël say propre initiative régleel ko sa bopp waaye bisu tafaatin booy ñaa bii bisu encadrement technique laa ko jàppe dina ci feeñ kon ku ñëw ci ñoom ñaar mise comme li ñu waxal ni tafaatin mise ci bagaar bi kese mën naa mën naa am lu la bett kon maanaam ñoom ñaar ñëpp ku ci ne li am solo mooy nga bàyyi xel sa morom bu baax a baax baax maanaam Babacar si je comprends bien li ngay wax euh, bëre du ci doole kese technique la laaj. waaw parce que doole xam nga doole ci bëre balaa nga ko utiliser. da ngay mhm. jàpp ba pare. Mhm. mais des fois mbër ñu daan ko ci doole. Mhm. parce que des fois nga fekk nit ki di ko am noo koy noo koy jaayee doole bu génnee bu la moytoo sax nga wàcc. dëgg la bëre benn jëli la bëre bëre bëre dool benn jëli la. boo defee kat appui daam làmb ja jeex bu sa fees bi tegoo lamb ji jeex na. dëgg la kon malaa nga utiliser doole. Mhm. am na ci doole bi baax na pour résister. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. doole bi baax na pour nga am prise bu baax. parce que am na prise yoo xam ne doole moo koy eggali. foofu lañ koy soxlaa mais nag doo fekk rek. sa adversaire nga ne rek damay jaar ci comme jaay ko dool ni rek jàll te tegoo ko ci xam-xam tegoo ko ci aw yoon boo ko mm. defee mën na laa daan jël bu rëy ba nga ñibbi loolu dëgg la ah. macha allah kon nañ ci bàyyi xel cela veut dire que doo bëre daal du doole kese ah, technique xel da cee baax ah. donc euh, ñi daal di jàll ci écrit boobu nga xamante ne mooy Tai Shinga mm-hmm. nee nañ à un nouveau président mm-hmm. Barkala remplace Khalifa Sall daa mel Khalifa Niang. Khalifa Niang Khalifa Sall sa candidat la xanaa. Khalifa Khalifa Sall daal na ma baal Khalifa Niang lañ fi wax surtout. waaw moo remplacé kooku euh, nga xamante ne mooy. wala Barkala moo Barkala moo remplacé kooku nga xamante am na solo foofu la ngir taay singa bu ñu xel day dem ci Eumeu Sène borom mhm. taay singa. Mhm, parce que équipe moom moo fay tëdd fii. Mhm. tey bu Khalifa Niang démissionné ñu toog ba quelques jours Barkala remplacé ko ah loolu mooy. àddina maanaam nit da ne ci benn mbir di ci nekk ba benn moment vraiment même nekkatoo ci nga bàyyi mhm. wala nga démissionné wala nga yaa xam noo ci génne mhm. l'essentiel que ñu wut keneen ko xam ne ni dina ñëw nekk sa place mhm. kon loolu mooy li fa am nga taay mu nga Pikine seen bu ah, ba ñëpp kontaan si sa liggéey keneen jóge fee ñëw sa place loolu je pense que loolu bonheur la si kooku nga ne moo occupé woon place boobu waaw parce que occupé seen dëgg euh, roi des allah donc euh, fii tamit nee nañ après 43 ans à la tête des Lions mhm. Ambroise Sarr mhm. toujours prêt à aller au charbon pour son pour mon pays maanaam moom daal dafa pare pour liggéeyam loolu liggéeyal loolu nga xamante mooy dëkkam waaw parce que day mhm. mérite na lu ne parce que ne laa tey mhm. mu am nekk at yooyu ci bopp équipe nationale uh-huh. ba tey mu continuer di fa nekk te toujours mu ngi pare pour di servir dëkkam mhm. ça dire que kon moom sénégalais que da bëri ki dem jël na drapeau CEDEAO fi nga xam ne moom mooy Sénégal te bu demee Niger noonu la ko fay ñàkkante jël ko bu demee Burkina noonu ça veut dire que bëri na mbër yu bëri yooyu dégg tey yu jaar équipe nationale jaar nañ ci loxoom en tant que entre l' entraîneur national. Mhm. kon Ambroise Sarr. Mhm. mention spéciale lañ koy wax. di ko ñaanal yàlla loolu nga xam ne nii mu ngi ko yore équipe bi vraiment di ko doxal. Mhm. parce nag équipe buy gagné lañ soxla. te macha allah saa bu demee compétition buy ñëw médaille d'or ya bu dee. vingt médailles d'or la jàppal ne dix-neuf dina ko indi wala o moins mu indi sax cent macha allah comme ni nga ko waxee rek donc mention spéciale à Ambroise Sarr et kontaan nañ ci moom bu baax a baax mhm. fii daal ne nañ Babacar euh, trois défaites d'affilée mhm. pour naaru Soga <coughs> borom Thiaya joue gros contre Jackson junior. daa mel ni dafa dafa teg les trois combats yoo xam ni dañ ko daan. waaw naaru sogas. Ah. loolu la dund. loolu loo si wax tax mu jëm ci combat bu métti Dimas. Mhm. boo xam ne moom tamit mhm. loolu nag boo ko gisee ça veut dire que lamb moo tëdd noonu des fois sport sax laay wax da ne ci contre performance souvent. Mhm. mais après. mun nga rebondiraat. loolooy àddina xam naa ne moo tax mu jël xale bi. loolooy àddina parce que ne ah, def exploit bu doy waar doy waar. waaye est-ce que dina ci génn loolu tamit beneen laaj parce que xale bi muy bëreel dafa war xat mhm. te xale boobu di Jackson mhm. daf may sax Modou Lo ndax mbër muy def ay exploit ci géew yu doy waar mm. tey bu ci jógee dootoo ko gis fenn macha allah butu rek macha allah kon daal jàppal ne. Mhm. jéey incha allah rabbi dimanche andi na ju doy waar. ngoon sax di ngeen am fii direct. Mhm. plateau bu jéey moomu tëgg làmb ji dina fi ñëw toog. ak ah. Fadamtu sama consultant bi. macha allah waxtaane combat boobu. daa mel ni loolu du yomb de ah. non ah, ah, allah kon ñu ngi koy xaar ak doole. Euh, su ko defee ñu daal ñu daal di jàll ci kook nga xamante ne mooy Fatma Dia. Mhm. reportrice euh, de lutte. nee na moom daal Abdou Ndiasse Pape Ndoye mhm. c'est un combat de feu maanaam combat bu nar a tàng la bu nar a dëgër la waaw Abou Niass ak Pape Ndoye wax na dëgg loolu Fatma wax dëgg la mhm. Fatma ñu mhm. ngi koy ziar suñu jigéen jigéen la nekk Kewel Info euh, Abou Niass mooy bras droit wu foo gis Siteu gis fa Abou Niass foo gis Abou gis fa Siteu Pape mooy rakku Lac Rose bu Fass combat la boo xam ne bu nar a metti la démb lañ doon def la nga xam ne moom mooy signature contrat ba arène nationale man mi maa ko mhm. doon présenté mhm. muy combat boo xam ne le 21 novembre lay am mhm. boo bëggee dégg dëgg jamaïcain mi ko tëgg indi na combat bu méttee méttee méttee instant yi yow noo gisee ñaari mbëkki mbër takku nañ am ah, looy ñëwul ñëwul ñëwul waaw abu ñaas moom ñëw na moom lan mooy justifier absence am absence bi daal ne nañ daa voyagé yooyu Ah. waaye nag liñ ciy wax mooy. Mm. comme tey boo fekkente ne Mariama dafa euh, bëgg tëgg sa combat wala Ramatulaay. Ah. nela la mm, fekk ma place tel. Mm. dama bëgg sa combat ak diw nga d'accord. Ah. nga ñëw mu yëkkate xaas jox la nga encaisse sa yóbbu. normalement ngeen bindante. bu la woowee ci signature contrat li bu gën a rafet te jekk te jaabu. te liy defar mooy nga ñëw teew. mbaa ragalul. ah ragal day yaakaaruma ko ndax ñaar tali la dëkk. te xanaa doomi ñaar tali man tamit Pape moom du ragal loolu moom xam naa ko abu ah du ragal waaye bëri des fois ay problème mu maara yooyu ñoo leen di kii te démb dama gis lu doy waar arène nationale mhm. ay gàllaaj dañuy dem for ko ci giiw bi bu ñu bëree xam naa gàllaaj yi dagg des fa gàllaaj bi mbër bi takkoon mooy booy ñuy takk nii mhm. gàllaaj ji bi bi ko père Max Mbargane daajee xam nga lan lañ ko fekk mhm. ab calendrier <laughs> allah akbar c'est te jure te leer na ma ne mbër ma fay na ca gàllaaj googee xaas bu bëri boo demee calendrier ah. bu ñu bu ñu defar ba mu jekk comme nga jël journal bi defar ko ba mu jekk ëw mhm. ko jox ko mu takk kon bëri nañ bàyyiwaat xel loolu bu baax a baax a baax mm. loolu démb ñun ñoo ca teg suñu ay bët Mansour mi fa la ko fekk ah mais loolu warul bett kenn parce que ñun d'après ce qu'on voit à la télé. Mhm. daa mel ni ci biir arène bi daal mën na ku nekk mën na def euh, mystique am si biir euh, devant tout le monde c'est pas un problème. waaw ouais, non mais xam nga soo dégg ma xam maanaam ça veut dire que mbër mi. dafa mhm. war a xam ne xam nga sëriñu làmb dafa am. Mhm. mais am na ñu mel ni man. ah boo sàgg nañu jaarale la ci mbedd moo xam ne du baax dañ lay nax rek. parce que calendrier. nga ëw ko jox ko ne ah on sait jamais en tout cas tey daal euh, yëglekaay yi loolu lañ loolu lañ leen indiloon. Mhm. Euh, am contentement bu baax a baax nekk fi tey ak kooku nga xamante ne mooy Babacar su ko defee ma bàyyi la nga tàggatoo. Ramatoulaye la Ramatoulaye Diallo ah. <laughs> kontaan ci yow di leen mhm. ñaanal jàmm di la wax ne rek bon lamb moom comme li ma la wax la rek. Mhm. dafa nekk lu nga xam ne mooy suñu sport national. defe naa itam lu nga xam ne la ñoo ko mën suñu bopp. kon di nuyu képp ku ñu suivre. à travers TV di la ñaanal jàmm. di nuyu techniciens yi nga xam ne ñoo mel ne ci ginnaaw caméra yi muy Mansour muy Habib ak El Hadj ak ñoom Balde. Mhm. duñ fàtte kenn. Mhm. ak ki nga xam ne moom mooy Habib ah Habib Jantal euh, mhm, ni nga wax tey ci sama yére bi yére bi ki ma ko nekk fa la nga xam ne moom mooy bu Khalifa Sall bi comme ni ñu ko waxee. Ah, euh, ki nga xam ne nii moom moo di jaaykatu jasneer boobu nekk fi nga xam ne ni moom mooy marché asalem Mm-hmm. ah maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom Rémi Ka Couture mm-hmm. di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñu suivre à mm-hmm. travers Equivox TV di kontaan trop vraiment tey ci partage ak yow plateau Zidea wu lamb bi nga xam ne en tout cas Babacar c'est avec un grand plaisir kontaan naa trop trop trop su ko defee fii la ñuy tàggatoo ak yéen di leen jox rendez-vous demain incha allah.